auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci ñaar fukkeelu jataay ak juróom-ñeent ci téereb Xalimag ak leer noo ngi toll ci wet gi jëm ci wàllu tuub ak ak jéggalu tey nag dañuy indi waare wu mag wu Sëriñ Tuubaa waare woon jëmme ko ci wàllu tuub ak jéggalu sëriñ tuuba mas naa def waare wu mag wu jëm ci ak tuub ci bisub àjjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru rajab atum ñetti junni atum junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent 1339 dëppoog 1921 ci atum tubaab dafa dajale mbooloo mi ànd ak ñoom julli ñaari rakka ci waxtu yor-yor daldi leen digal ne ñaari rakka yooyu nañu ci yéene ak tuub gu sell bi ñu jullee ba noppi nag lii la leen wax digal naa leen tuub gu sell ci waxtu wu nekk ak saa su nekk lépp loo xam ne xemmem ngeen ko te mu jafe leen na ngeen tuub dellu ci yàlla kon dina leen jox loolu ni ngeen ko bëggee lépp loo xam ne bañ ngeen ko te mënu leen koo dindil seen bopp tuub leen dellu ci seen boroom kon dina dox seen digg loolu ci lu dul benn coono bu leen tooñ seen boroom bu leen tooñante ci seen biir tooñ sa boroom nag mooy ñàkk jëfe ndigalam bi ak def tere yi yàlla day ku barile bu ko nit tooñee soxlaalu ko dara day jël jëf yu baax yi mu jëfoon rekk delloo ko tooñ nit nag ni ki jëw ko xas ko ŋàññ ko ki lu dul àqay moom nit moom nit day ku ñàkk moo tax boo ko tooñee dañuy jël saw yiw jox ko boo amulu yiw ñu jël say ñaaw ay ñaaw jox la loolu lépp nag mu ngi cosaanoo ci di gis ayibi keneen te doo gis sa ayibi bopp bu ngeen yamoon ci seen ayibi bopp kon mu doy leen sëkk walis ayibi keneen xanaa gisu leen seen bopp wa fi anfusikum afala tubsirun maa ngi leen di dénk tuub tey rafetal seen diggante ak mbooleem ñi ngeen dëkkal ci kilifa yi àdduna ak taalibe yi fu ngeen mën a nekk nangeen di rafetal ci seen diggante jàmbati nit ñi ci yéen bàyyi ko ci wet gu ne mi ngi juddoo ci seenug ñàkk tuub li am dëgg-dëgg mooy tuub day ñoddi mbégte yi di jañ mboolem lor yi taqoo leen ak tuub kon yàlla dina soppi seen mbir jëme ko ci anam gu gën a rafet maa ngi leen di dénk lii ginnaaw ba ma ci jaare ba xam li mu doon képp ku fekk wax ji na ko jottali ku ko fekkewul yàlla na nu yàlla dimbali te dimbali leen ci sàmmun dénkaanam amiin wasalaam kon noo ngi foofu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi